caméra de surveillance yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci mbedd yi loole di jur kaaraange askan wi waaye tamit di yombal ñi nga xamante ni ñoo di enqueteur yi seenub liggéey lii moo ci kàddu sénégalais yi ca beneen wàll ga nag ñu ngi wax ni war nañu xoolaat bu baax anam biñ koy jëfandikoo. caméra cachée je pense que baax na c'est très important si. dëkk bu mel ni Sénégal surtout euh, plus particulièrement Dakar. waaw mais caméra kasa loolu kay moom lu baax la loolu kay lu baax ci réew mi la parce que boo defee yenn délit yi. Euh, caméra yi dinañ la jël. instant yii nii gars yi dañuy agressé bu amul agression yi amatul ak bëccëg yaa ngi yor scooter këf sa daw te doo xam foo koy dawee ji peut-être bu ñu amee appareil yoo xam ne ñu permettre boo gars yi identifié mën laa jàpp. loolu dina baax dina baax trop. baax na trop parce que day tax euh, yenn ñaata yu bëri gars yi koy daw quoi. et puis tamit day tax ñu mën a identifier def katu ñaawteef waxuma la police bi rek mais askan bi rek askan bi rek loolu noonu dafa baax dafa baax dafa baax ci dëkk bi daal baax na ci dëkk bi trop waaw crime boo mën ci def tamit après da lay gis boo si boo jëlee yëfu jàmbur tamit daw caméra yi mën nañ la jël boo fiiree ni daw xamuñu fan lay daa fan la a jàppe mais procédure mooy yéex te tey boo firee ni daw bala ngaa dem di xool appareil di ko di ko vérifier bay àgg fekk kooku peut-être mën naa génn fii fépp. bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Traoré mu ngi xamle ni parfois vidéo yi ni ñu koy jëfandikoo mën na sax dem ba yàq image nit ki. dans un sens c'est négatif euh, ça met des informations à la portée de de l'État qui peut inculper certains qui sont en train de se cacher qui ne veulent pas que l'État soit au courant pour eux ça peut euh, un point négatif pour eux mais ce qui est sécurité d'un pays. ci tënk caméra de surveillance yi moom day sàmm kaaraange réew mi ba tax na sax foo tourné rekk danga koy gis moo xam mu nekk ci suufu pont yi ci buntu kër yi wala sax ci biir entreprise yi ak yeneen bërëb yu ni mel.